li tax ñu ñëw ba buntu kër Malick Gako pour def conférence de presse parce que jamono yi yëp ñi ngi naan ana Malik ana Malick Malick sama frère la man ak mom ñoo magando fi ki mu depuis le kër gi muy cekkam ak sama yaay ñoo daan tok fi di jaay gerte tiaf Malick dafa fièvre mi ngi ci kaw lalu hôpitalam motax ñu ñëw taxaw fi pour jallale message am ñu xamal waa Géejawaay ne Ahmed Aidara mom lañu denk dénk Géejawaay lepp lu yàq way day tardel gestion day wëlbatiku ñëw diko défarat ñi nga xamanteni ño taxaw naan nañu xeex ak nañu def li mais rombu nañ police yi mhm. lan mo tax xeexu ñëw police yi mhm. jital ay jigen naan nañu xeex nañu xeex ñun ño leen dakk xeex amerique la commencé xeex té limay may ragaluma ci dara mais gis nga nit da ngay am xel nit da ngay am xel cërpi cërpi jeek fërti fërti jeek yep jaruko ñoo ngi jëm la 27. dama leen a woo léegi na leen dajale leen seen bopp ñu def réunion ñun ñoo moom géejawaay ñu def technique boo xamante ni boo moytuwul le 27 ñoom balaa ñoo egg si tribunal dinañ am amet loolu mooy wax ji mais taal ay pono toj ay bitigu jàmbur genn wàll gi yëpp ay sàcc lañ ñun xam nañu ñun géejawaay lañ dëkk xam nañu nit ñu baax ñi xam nañu agresseurs yi xam nañ ñu jub ñun dañuy liggéey liggéey pour defar Sénégal liggéey pour yàq Sénégal liggéey ñu tamit pour lamine bu reuy wala taxaw di def conférence de presse li ñuy def maire honoraire bu way muy malik Gakou mom lañ koy defal motax ñu ñëw ba buntu këram nekkuñu fi di reuy lamine parce que ñu Macky Sall man waxna ko buntu tribunal ba police nga ngi taxaw commissaire nga ngi taxaw mané ne faalewu ma ndeyam faalewu ma baayam lenn Macky Sall billahi wallahi sama bakkan bi amerique la ko joxewon addi addiya nak li des le 27 fepp fu doomu way réunion na nga genn te stratégie. ay réunion pour dajalo pour wax ban stratégie lañuy waaw du ay taali pono du yakal sa bitigam pour du toj sa auto toj journaliste tal auto yi du say ngay yakal dello Sénégal jeex technique man policier faalewuma lenn parce que ay citoyen lañu comme man dégg ngeen ah mais boo yi nekk fii yëpp boo leen xoolee dàll yu baax sax soluñu ko ah naan nañ dem xeexi te yaa ngi romb police yi romb jeunes yi romb ñëpp ñëw ba buntu kër jàmbur naan nañ dem xeexi nañ dem kii demal xeex man bi may xeex sama biir saal toogoon di xorom ñu fekk ma fa ma ma ñëwaat toog sama biir salle di xorom ñu fekk ma fa tëj ma 15 mois ma ñëwaat toog di xorom ñu jàppaat ma tëj ma 8 mois bi mu ñëwee en mois de mars ci biir kaso ba la ñu toog ma ne Guy Marius Sagna ak Abdou Karim fekkewu ko man Guy Marius Sagna Clédor Sène xam nga Abbas ñun ñëpp ñu toog ma ne leen xool leen bàyyi leen leen ñu def leen neex jox naa leen 48 heures xale yi dinañ faj ndaqar bi parce que man mbedd mi laay waxal waxuma ak Macky Sall bu ma doon wax ak Macky Sall xoolal étage bu mel nii laay tabax toog ci kaw naan leen dem leen xeexi man defuma loolu bugguma dara lu baax Sénégal tant que sénégalais yi amuñu jàmm parce que loo fi am lu baax te sénégalais yi amuñu jàmm amoo dara ak koo mënti doon nag moo tax nañu jubbantiku waxtaan dégloonte tamit dégloonte parce que affaire yëpp dégloonte la tant que dégloonte wuñu Sénégal mënuñu koo lijjanti. mais ay nañ dem xeexi nañ yaangi rombu te dox presque ben un kilomètre nan nañ dem lu tax fait faire du nonu ki tok di xex ak ñun ñu wara a riposter mi ngi tok ci biroom di joxe ay ordre ñun tamé dañu wara tok qui joxe mo d'ordre bo xamné buñu génné mom ci dina yegg na fayu nañu. lu le 27. voilà le 27 li ñu nar duñ ko wax ci ay conférence de presse Nous ñoo nous moom de mais dama bëgg képp ku taxaw fii rek nga xam ne bu fekkee Ahmed Aïda Ahmed Aïdara ñor na la moo taxoon nga ñëw nga xam ne le 27 dañ la soxla ñu ngay dem kaso man du ma dem kaso xam nga lu tax du ma dem kaso parce que dama yor làmmiñ boo xamante ni heure bu ma waxee 24 heures après 200 et quelques mille doomu aadama dañ koy déglu 200 et quelques mille doomu aadama yooyu may yëkkati buñ ma dugalee ci kaso bi kan moo leen di yëkkati ah yëf yi xel la du tàppet man faalewuma maami Macky Sall barke yonent yàlla Muhammad faalewuma ko voilà fii ragal juddoowu fi voilà léegi nag message bi nga xamante ni moom laay jàllale mooy Malick dafa tawat dafa tawat ngeen ñaanal ko yàlla yëkkati ko bu ko defee taxawaay bi gën a yokk parce que fi mu toll nii même liir yi ci kaw lal yi xoolal bis bu ñuy def mars dañoo soxla sax boo ko mënee xoolal fexeel ba ne liir bi nii ndax mu jooy na buru bi dem fenn fépp ci àdduna bi loolu la ñu soxla ñëpp la ñu soxla soxlawuñu ñu ñuy jàpp di ñu yóbbu kaso chaque jour soxlawuñu loolu loolu du technique du technique te bu ñu jàppee ñëpp ñëpp ñeneen ñi ci des ñëpp dañuy dem tëddi am leen xel loolu moo tax ñu ñëw fii xam nga loolu moo tax ñu ñëw fii ma bàyyi ñeneen ñi wax sa waay président Malick Gakou déggante ak moom démb biñ déggantee ku ne xam na ne président Malick Gakou lépp lu Guédiawaye mës a sumb kenn du ko ci jiitu comme ni ko sama président waxee léegi Assane Diouf loolu laay waxaat Malick Gakou heure bu Guédiawaye taxawee day taxaw mais ku ne xam ne actuellement dafa nekk Paris feebar ba sonn il faut nit ñi xam loolu ñi koy laaj il faut ñu leeral leen loolu bi ci topp mooy. bi ci waaw. Collé Collé. bi ci topp nag bi ci topp nag mooy sa waay. Tafa gis naa ko mu nekk fee di wax ay affaire di teg yaa ma dégg mais ñun xeexuñu. non ma ñëw ñu ma ñëw ñu suuf non attends ñun xeexuñu xeexuñu tojuñu ay station tojuñu dara yaa may dégg parce que fii lépp loo xam ne yàq nañ ko fi suñu alal la ñu yàq luñ fi toj suñu alal la ñu toj. léegi nag dinañ toog suñu biir ñu waxtaan ñu xool nan la ñuy génnee suñu maire loolu la amoon lu ma doon wax. ma ne xoolal ñun ñu taxaw ñu xaar même kër gi. xoolal même kër gi même kër gi. salaamaaleykum. gannaaw man maa ngi tudd Youssou Diol président des jeunes GLB bu Sam Notaire bu mouvement Guédiawaye laa bokk bu Ahmed Aïdara fii ci Sam Notaire maay seen président. gannaaw dafa am bu lu ma bëggoon leeral yéen journalistes yi ngeen xool Guédiawaye 67 lañ koy créé. dibi boobu léegi un doomu Guédiawaye mosut a nekk maire de la ville de Guédiawaye. ci Ahmed Aïdara la doomu Guédiawaye déggee maire de la ville de Guédiawaye parce que euh, Abdou Diouf daf ñu si fee indil Serif Macky Sall Serif Macky Sall gaañu yal ko yàlla yërëm Abdoulaye Abdou Diouf dem Abdoulaye Wade ñëw Abdoulaye Wade ba mu ñëwee Idriss Seck daf ñëw indil Bokar Sadikh Kane mu ngi ko jëlee Maris Bokar Sadikh Kane ñëw luwe amoo 4. nekk ñu fi maire jiite ñu boo ko Serif kan ba ba mu jeexalee Serif Macky Sall ñëwaat Serif Macky Sall ba mu gaañoo Cheikh Sarr ñàkk jariñ ñëw assuré intérim bi gannaaw depuis 67 ba léegi géej Guédiawaye musul am un digne fils waay Guédiawaye bu nekk maire de la ville de Guédiawaye yàlla mu ngi ko dogalee ci El Hadj Ahmed Aïdara durant boobu sept ans ñun ñoo ànd ak moom di liggéey ak moom ba ñu def kenn gëmuñu gars yi xam nga lu ñu doon tuddee waxkat yi. ñii revue de presse lañ gëm du ñu am géejawaay dara ñun ñu gëm lu ñu gëm taxu laxasaayu nekk benn say jëlee fi li fi nekk. parce que Ahmed Aïdara a fait une seule tort mooy devoir faire partir Aliou Sall le frère du président Macky Sall tort boobu rek la Ahmed Aïdara def loo xamante ni président de la république Macky Sall mun nga ko supporter mun nga ko jégal parce que géejawaay a choisi géejawaay a choisi ku ñuy wax El Hadj Ahmed Aïdara. bu lu ñuy referaat la dañ koy defaat tey xoolal grand ñi ñu war a tëj géej waaye ngay dégg fii un buy trafiqué au faux d' argent muy Bouga Jali te doomu géejawaay la un député bu nekk géejawaay ñun doomu géejawaay mosu ñoo gis lenn ci Macky Sall defar waa géejawaay Ahmed Aïdara nag dafa ñëw ngir dagg buubu jaam ne waa géejawaay yéen ñëpp ñëw leen ñu nekk benn sey liggéey géejawaay lii ñu ko def nii nag jaay doole on le président Macky Sall dès bi moom dès qu'il centre santul Sall santul Diol santul Ndiaye dès ça appartient au peuple sénégalais man nak limay wax tous les jeunes du mouvement Guédiawaye laa bokk gars organisé avec tous les cinq présidents